li ma sant rek parce que maa ngi koy def la paix en Casamance daf may taxaw parce que loolu Sénégal di sant